mais da koo fase takk ki nga xam ne moom mooy ah yaa awa rasul yaa awa rasul nag avant muy am jëkkër ju njëkk ja moom la daan génnal ba mu nekkee xale après mu am jëkkër seen relation dagg après mu jëlaat ko daal di koy takk Tamsir Samb la tudd nekk Amérique basketteur la léegi nag dinaa ñëw dinaa leen tegal photom ngeen xam kan mooy chéri yaa awa rasul information day leer mais ay yaa awa marié tur bi mi ngi commencé te mi ngi commencé ik sénégalais yi duñ comprendre Tamsir Samb moo takk yaa awa rasul basketteur la nekk amerik baa na. salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi wuti leen telegram ngeen abone ci telegram King Saliou officiel mi ngi sama bio TikTok amul telegram demal télécharge ko nga abone gaaw boo amul telegram danga koy télécharge bu fekkee am nga telegram cliquer lien bi nga sama bio TikTok nga abone gaaw gaaw gaaw leen. maa ngi ñëw live yëpp yéen daw leen abonné maa ngi ñëwaale live merci